àndee doon benn xajuñu ci kenn wone ngeen ko tey ci ni mu gën a taaroo jërë ngeen jëf su ma ñëwee ba fii mënuma bañ a nuyu le premier ministre Mohamed Dionne maa koy tàllal loxo du mu ñëw kóllëre defe naa ni place fii la et fi mu nekk. merci aux populations de jurbel fii laa jàngee liggéey bi ma génnee école def naa fii at kon xam naa Diourbel bu baax a baax a baax ñaari at ndox mi ñuy naan ndakaaru danañ ko naan Touba danañ ko naan Mbàkke danañ ko naan Diourbel su ma ñëwee ba Fatick il faut que ma jàkkaarloog yéen pour rendre un hommage mérité à un digne fils de Fatick quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses quelqu'un sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui je veux le président Macky Sall. ñëwoon nañ fi def fi un conseil présidentiel dama bëgg ngeen jàpp lépp lu ñu waxoon ci conseil bi dinañ ko exécuter fii ci Fatick dans les trois ans à dinaa def un programme spécial pour delloo suuf si kattan bi mu war a am. pour ñu mën a def production bu am solo